parce que ñu bëri jàpp nañ ne un bilan il en am na ci lu am solo mais aussi euh, ci beneen wàll wa digganteem ak euh, ñi nga xam ne xëy na ñoom lay faral di xëccool wala digganteem ak euh, ñenn ñi nga xam ne dañ koy faral di dingat ñu bëri jàpp nañ ne mbir la moo xam ne aussi mënoon peut mieux faire mënoon na def lu ko lu ko lu ko gën. waa xam nga compétition bu ñu nee compétition compétition la maintenant ki nga xamante ni si moom mooy compétir bu dee moom moo étaler ay faiblesse am ba mënul compétir mais kooku bu mu ko jiñ kam ko seqal. tey jii ñi nga xamante ne sii ñu bëree bëree bëri tuumaan lañ leen wala bokk jàpp nañ leen ci ay mbir. Mhm. mbir yooyu ñu leen jàppee wala ñu leen tuumaale amul dara rapport ak politique amul rapport ak politique ay dossier personnel la privé même à la limite yoo xam ne waru woon sax ñëw sur la place publique mais peut-être ka mu ka mu concerné moo am personnalité bu tax ba su ko dara dalee faaw mu ñëw ci place publique bi mais en vérité c'est des dossiers purement privés. mais ça fait c'est-à-dire parce que mën na arrivé benn yoon ñu ne bon voilà mais deux fois trois fois. mais pas n'importe qui là on, on se pose en, ah, des questions. mais euh, Mamadou Awa cest que dossier yu mel noonu mi ngi dal ay sénégalais yu bëri yoo xam ne xëy na man ak yow euh, ñoo yem ci ñoo yem ak ñoom. moo di ne amuñu wala mm-hmm. amuñu yenn autorités yi. pourtant pourtant dañuy régler di ces dossiers là au tribunal mais parfois même mu am ci dossier yu mel noonu yoo xamante ne si dafay nekk dans l'administration. nit ki dem def médiation pénale mhm. maanaam nangu ne kat euh, lii ñu ko tuumaal moo ko def mu fay loolu am na ba tàyyi mhm. mais kenn du ko étaler sur la place publique mhm. donc yooyu nag su dalee koo xamante ne si ku ñëpp xam la mais effectivement forcément dafay siiw nekk sur la place publique et parfois sax ñu instrumentaliser ko def ko des dossiers politiques alors que nekkul des dossiers politiques parce que la preuve am na ci benn ci dossier yooyu kenn ku nekkoon si ñoom ci jamono yooyu moo ne moom moo suggéré woon ñoom ñu mais il savait pertinemment que c'était un dossier privé personnel. vous parlez de moom Lamine Massaly je pense que cette sortie là xëy na yéen suivroon ngeen ko. bi mu waxee ne moom moo suggéré woon à quelqu'un boo xam ne dafa amoon maille à partir avec la justice ci benn dossier privé pour que ñu politiser ko comme ça au moins mu jox ko benn semblant d'immunité. Mhm. donc c'est dire que quelquefois les acteurs politiques ñoom ñooy jël seeni dossier privé pour justement am peut-être benn genre immunité. boo xamante ne si seen. Ah, mais mais dans dans ce genre d' affaire ne justice bi di ébranlé woo euh, pas ébranlé di di entrer en branle mooy xaw a jaaxal nit ñi maanaam yëf yi dafay dafay dafay gaaw de telle sorte que on ne peut pas ne pas voilà avoir de soupçons dans l' affaire Khalifa Sall aussi rabat d'arrêt bi coow lu juróon euh, rapidement ñu lem ko teg ko de côté tey jii nii on euh, parle de Ousmane Sonko moom it ay mbiram gis nga élection yi léegi mu ñëw daanaka voilà ay mbiram leeratul yooyu aussi ay mbir la yoo xam ne on ne peut pas pas avoir de soupçons. mais gis nga moom daaw contraire qui aurait aussi. attiré ay coow yu bëri bu fekkonte ne dossiers yi noonu dafa ñëw ñu mu mu nekk dossier comme dossier yi nga xamante ne si peut-être tribunal parce que tribunal bi aussi mi ngi rendre ay milliers de dossiers par jour mm-hmm. dans les juridictions sénégalaises mais comme li ma wax tant que mi ngi nekk ay dossier wu Issa Khoulé ak Mamadou Ndiaye xëy na kenn du ci wax mais su nekkee dossier diw mu nekk lu siiw lool mais aussi revers bi mooy bu nekkee dossier diw te peut-être amul benn célérité bi justement dañ naan ñoom ñoo ko bàyyi pour pour pour pour pour peut-être après les élections forcément parce que on dit que Ablaye Wade yàgg na am problème ak Abdou Diouf mais il a toujours participé aux élections Macky aussi am mais n'empêche dem na élection euh, Idriss Seck pareil mais les adversaires du président Macky Sall ñoom ku problème avec la justice dañ lay dañ lay éliminer président Macky Sall que ma élection suba incha allahu mhm. rabbi te dinañ dem incha allah rabbi Benno Bokk Yaakaar dina dina gagné parce que sénégalais yi gis nañu li fi président Macky Sall liggéey ànd ko ak toute la mouvance donc loolu ñun amuñu ci amuñu ci euh, euh, hésitation wala mhm. dara mais na comme li ma wax c'est-à-dire que yow mënuloo parce que acteur politique mënuloo ne parce que yow nit ku siiw nga boo defee njombe kenn du la woo wala kenn du la kenn du la àtte loolu aussi faaw ñu nangu ne la justice il est là pour tout le monde ki si na góorgóorlu ba nga xamante ne si même à titre privé. Mhm. peut-être duñ ko mën tuumaal loo xamante ne si dafay dugg dans la sphère.